beneen affaire la ndax dafa may daaneel. kii dafa rob mu neex di dem ngeen lay waaye kii dina ma rey ci réew mi. non non non non. xam boole ci live ak buuse. da ngay tukkal àdduna bi. mais Matar Gueye coow li bari na trop ci diggante Ada Fass ak Zarko. jugal jëkkal toogaay bi tuuti rek. waaw mais Alaaji di la bëggee di la. di la masaw ndax combat bi nga joge liggéey nga ci mhm. liggéey bo am solo ci walu xam-xam ci walu experience bi nga ci doxal ak li ngay tek ci lamb ji mu mhm. nek lu leer nak ndax combat bi bala ma ñëw ci Ada mhm. Fass rek nga may ma tuuti ma def ben bref ci combat bi weesu dama dama la ko ñaan rek fa ma la ko ñaan yagul wan minute mais loolu dinañ ci ñew parce que xam nga lu tax yow ko combat bi weesu bu ma jëlee bref. combat bi weesu bu ma jëlee bref da ragal nga moo ce que géej nga sant sax wala Cees nga dëkk. li nga wax li nga waxee nga ci internet bi li nga la. déet déet déet déet man kenn du ma baat dugg yëpp. sa non defal naa bi bi non damaa bëgg déglu ma déglu ma ñëw dama koy ma ñëw parce que xamul ay mool fan ay mool laay ay mool tax mooy lépp fadam yi mën nañoo témoin parce que xamul tax fadam booy ñaa nan la mën a bëreeg Balla tey kenn taxaw di am xalaat sax di jox booy ñaay favori mais c'est impossible loolu mënut a nekk Boy Niang au contraire live bi da koo dimbali parce que limu mu li mu bëree si. Mhm. fekk na ñu commentaire ko ci live bi ba teg Fadam mii leer na ko. mais mu ngi faux compte boo xam ne nii. faux compte boo xam ne nii amul nit amul dara amul. page bi mu ngi noonu mais faux compte boobu gars yëpp dañoo amoon ci page mayul Balla Gaye mais loolu fekk na Fadam ñun ñun ñu commentaire ci ci ci combat ñu wax ci. mais nag bu bu caaxaan jee bu bu waxtaan jotee ñu war a wax dëgg di commenter ci làmb fi Balla Gaye jaar adversaire yu mu bëreel Boy Niang bëriwul ak ñooñu Boy Niang ci Lac de jóge ci Tapha Tine malgré daanuñu ko ci làmb ji mais joxewu ci résultat boo xam ne cent pour cent la mais kon ñun fon lañ mën a jaar wax ak Boy Niang ba mu tey mu xam ni moom dafa bokk ci làmb mu xam ni champion la mën a dëggal boppam ci wàllu ci ci wàllu combat ak Balla Gaye mais doo ñëw di jox booy ñaa faveur pourtant da nga jox perdant loolu moo ko defar loolu moo ko def rancunier ba li mu ëndal Balla Gaye ni jaaxal ñëpp mais loolu xam-xam la loolu ko am expérience moom moo koy déglu mais nag nekkul ni tey Matar Gueye dafa toog ci laaj bi génne ni Balla Gaye laa faral ba léegi di xamoo kan laa faral ci ñaari mbër yooyu pourtant bu far di am am naa fu ma far mi ngi noonu. yéen a bokk Thiès de. ah grand Youssou Gueye ñu ngi lay nuyu baax di leen ñaanal jàmm tey nag waxtaan wi ci diggante Ada Fass Zarko la. ndax te jii li tax ñu def ko ci Ada Fass Zarko mooy da nekk combat boo xam ne nii mu ngi ci suñu kanam nekk làmb joo xam ne nii tey jii Zarko ñi mu bëreel Ada Fass bëriwut ak ñooñu. waaye guddi yi ñu toll nii Ada bokk na ci xale yi gën a jar ci làmb te tey jii loolu nag dafa nekk benn avantage boo xam ni ci wàllu làmb làmb yàgg naa bindoo noonu mbër mu ndaw yàgg naa fële ci làmb mbër mu mag jox ko loxo ne kaay fekk suñu waaye tey jii Matar Gueye balaa ñoo dalal gannaaw Youssou Gueye di ko laaj ci combat ah boo booy ñaa ki nga xam ne nii tey jii ah, la ah, yéen ma dugg sax ci booy ñaa ay xoolal xoolal yoru dara yoru dara mais bras bi ñuy wan nii sa bras bii nga ñuy wan nii gars yi di jox na bras bi daal dara newu ci ak épaule bii nga ñuy wan nii enseigul man màgget mag màgget naa màgget naa ah, fala maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Matar Gueye borom Firenze maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee di ziar gars yi nekk ci kii bi yëpp di ziar grand Ibnou Sow yàgg na di seetaan vraiment nit ku commenté am solo lay def quoi waaw euh, Fadam. wallaay ndeysaan. wallaay bi moom dafa nekk combat boo xam ni. Mhm. Euh, combat bu neex la. bu mhm. neex a neex. waaw komba la boo xam ne bu neex a neex. muy diggante Arafat mais. ban ko. waaw indil na ma Eumeu Sène Ousa Sow bu njëkk ba amoon stade Demba ba Mar Diop. waaw nah, waaye gitu. jox na ma tamit uh, hmm. jox na ma tamit diggante diggante Balla Diouf ak Saliou Diouf Balla Diouf bi nekk en écurie Fass waaye combat bi damay ragal eh! dama cee ragal wor dama cee ragal wor ci ñoom ñaar ñoom ñaar ku ci nekk ni nga waxe boo ko jëfee rek hmm? te Ada Fass nekkoon na fi mbër parce que Ada Fass booy bi dëkk booy bi dëkk Pikine defoon def na ko mbër mais booy bi dëkk Pikine def na ko mbër. waaw Onde le def na ko mbër. waaye damaa yaakaar ne ba tey am na lu des. Mhm. Ah, gis nga. kadar ma gift dafa baax dafa baax ci dafa baax ci genre yu mel ni boy yi gift daani poy mhm. gift dafa baax jëlaani maa ngi lay ziar mhm. gis nga gift bu ko mbër manqué bu ko bu ko bu ko ndaanaan manqué fadam lu nekk mën na mhm. gis nga gis nga di nga ëpp doole jekku ci côté yëpp mais danga ngaa war a jékk jël ni mu gën a yombe rek nga daane ko génn ci bis bi ndax boo déggee boo déggee ñu naan bukki timis boo ko dàqee sa gétt bu tër tëdd ndax bukki guddi guddi lay dox ndax boo ko dàqee timis dina dellu si waat boo ko dàqee fajar moom mën ngaa bu la neexee nga dem tëddi mais lu boo ko dàqee guddi lu mu guddi guddi dina dellu si waat mm-hmm. te Zarko dama dégg sànq yow mi nga ne ma nga ne Zarko la mu yoroon ca Sa Thiès mi ngi ak moom bul fatani ni Balla def balle Beye wursugo làmb mi yëpp mi ko jël ginaaw bi mu joge itali te def na itali ñaar at doo delu senegal entraîner mm-hmm. entraîné mm-hmm. ëpp doole gaay wala mu yor doole jam yoroon comprendre mo ma wax motax combat bi ñom ñaar ni ñuy waxe ku ci ñëk wor fadam foofu la yam ku ci ñëk wor Ah. waaw Matar Gueye dama Matar Gueye dama Matar Gueye dama yóbbu Saalum ba Mar Diop ma daje ak moom di ko dóor timis ba tàkku saan Max Mbargane jàpp. Eh. daan naa ko cinq jëlu bañ daa arbitre Matar dafa war daan ma. loolu Matar xam na ci dara. waaw. Ah. mais Clarisse dégg sax ci diggante yaa ngi indi baatu wor damaa gis ko képp ku mu bëri ci làmb rek da lay imposer te Ada Fass ku imposer ci làmb dugg nga ci avantage am. waaw wor bi mooy dara ci làmb. loolu a mu yaakaar xam nga Ada Fass lii mu affiché nii damaa yaakaar dañ ko ko wax nii rek mais du ko def maanaam li Ada Fass affiché dama ko woo ci woo ko ci ghetto. dégguma de. damaa yaakaar ne Ada Fass du ko def. Hmm? <laughs> aha dégg nga kon kon kon léegi ñu mën a yegg léegi nag est-ce que Zarko fetal hmm. jiyaar bi mu war a fetal jiyaar ci kaw Ada Fass calculer calculer na ko calculer na ko normalement paaya aller retour ba hmm. ak loxo ba fa muy tegeek rapidité ba ak vitesse hmm. d'exécution bi ñaata mouvement la war a doon ndax Zarko liggéey na ko ba mu mat foofu la làmb nekk <laughs> naa bàyyi Dieylaani Gouye ak Matar Gueye ñu eggale ndax xam naa ne gars yi ñoom mais man lii a gis si làmb. Dieylaani maa ngi lay siyaare. non di nga ñëwaat daal feneen yow Matar Gueye bisimilah. xam nga dugg ci waxtaan wi daal di daal di xaabaabal fu mu dugg ci fital allo. yéen a ngi may dégg. kuy woo Matar na ko bàyyi. waaw mais fital jaar bi ci combat bi dafa am ku mu war. ko xam ne avantage am boo koy ubbil ay buntam lu mu bëgg mu am ko. yaa ngi may dégg Fadam. Matar Gueye déggul yéen a may dégg léegi. dama ni. maa ngi lay dégg jaar mi dafa am ci ñaari adversaire yi koo xam ne. waaw ñu ngi lay dégg làmb wala li mu bëgg mu am ko bu ko deful dina bëri combat bu métti. mu Ada Fass. muy kan. barke Serigne Bamba bu ko indilool. xa Ada Fass mu daan Zarko de fital jaar alxatar ji ko Zarko war a indil. xatar ji ko Zarko war a indil bu fa fekkul lu gën a teg loolu ci aada ci aada war ko war koo indil Zarko aada Fass dina bëre combat bu musta bëre fii laa la koy waxee la fadam takkal teg xam nga lu tax xam nga lu tax dégg waat dama lay rek ak Zarko ni mu nekkee génne ci biir géewu Zarko dafa nekk mbër moo xam ne si mbëru dësig mu màtt moo moom lu mu jàpp moo ko moom te lu muy wut ci force am la koy wut ak dooleem ak sañ-sañam la ilaha illallah hmm. yéen ba mu dalee bëre ba léegi nii ba ban combat nga gis Zarko bëri ko mu doon combat bu yomb amul Ada musuma ko gis. yàlla dimbali ne ko parce que mhm. génn na ci làmb am coow mais ko mën a bëre la nag. mais dama gis ay faay yu nekk ci moom yoo xam ne si bëgguma ko ci mbër moo xam da nga mhm. war a doon champion ëllëg. Fadam li ma lay xam nga ko Jeylaani li ma lay wax xam nga parce que ñëpp takk ngeen gemb mbër da ngay toll boo xam ne sii yaa ngi may dégg. mais yan faay gis ci Ada Fass. waa faay yi mbër. yan boo commencé dégg daal mbooloo topp la man ci Ada Fass yan faay da ngay soxor ci sa bopp da ngay nay ci sa bopp da ngay nungoo di làqu da ngay nungoo di lalu da ngay moytu yu bari mais Ada Fass yooyu wu ci dara xamul moment bi mu war a làqutoo xamul moment bi mu war a génne ba combat bi Zarko ba ba mu taxawee ba léegi nii yéen ñi yéen a ngi ci réseaux sociaux yi ñun ñu ngi ci réseaux sociaux yi li ngeen gis ci vidéo Ada Fass yu circulé est-ce que gis ngeen ko ci ci Sarko làmb <laughs> laajul loolu quoi yéen ngi may dégg wala déggu leen ma. ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. ñu lay dégg bu baax a baax dafa am looy encadré ba pare. waaw staf bi soog a ñëw mottali la. lu mooy xam li nga bëgg xam lila la tax a jóg. xam fi nga wara ag àgg ëllëg. Hmm. lu leer la lay wax. parce que Ada fas, dama gis ci mom yor comportement bo xamni ci ku wara doon champion ëllëg du ko yor. dañ de deug parce que li may wax nak dama bëgg ku ku nekk ci mom deug ma wala ku ko jige wala mom ci bopam mu defaraat toogaayam ta xamni tay warna am ci lamb lu nekk parce que xamul tax warna am ci lamb lu nekk fadam est-ce que xam nga ne Ada Fass combat bu mu am tey état bi mu indi tey ba am beneen mhm. nga xam ne làmb ji tey bu fi toogaatee ba trois ans quatre la nekk ci moom bu nekkee ci moom dina nekk xale xale bu jaaxal gaa yi waa mais loolu nag instant bi la instant bi mhm. la war xam fi mu war a teg tànkam ak li mu war a def ak li mu war a def mu nungu di lëlu di nëbbatu parce que mbër boo fang chaque jour gars yi da la gis fan lay jaar ëllëg day yomb mais boo na bor jaaxal gars yëpp. làmb loolu la laaj. mais dafa am adversaire boo xam si. Ada ba mu dalee bëre ba léegi nii. amagu ko muy Zarko. waaw dafa nekk mbër moo xam si tey. ragalul lu tax. na am na sañ-sañ am na kattan. physique bi te tëlewul bëre kon Ada bu ñëwee tey xalaat ni tey mën naa daan hmm? Zarko ci bëre lool mën naa nekk mais day fekk bëre ba xóot lool sori lool Fadam mais bu arbitre bi ne fër sañ hmm? sañ sañ-sañ tegal ko alxadar lim bëgg bu ko lim bëgg moom ci Zarko bu ko bëggee am dina jafe lool ci moom lool. waaw. Matar Gueye balaa maa dugal dugal Jëlaani Pouy daa am la bëgg a laaj. te laaj boobu Jëlaani Pouy dina ci tontu yow di ci tontu Grand Youssouf Guèye dina ci tontu. Zarko lan moo ko ci lamb lan waa Zarko li mu am ci làmb xam nga boo xoolee qualité bëre yi bokkuñu Fadam Zarko li muy bëre ak Ada Fass ni parce que kuy calculer mbër la. foo ko fekk ci biir bëri ci bërëb ci bër fa lay bëree yow fa la lay daane. Mm-hmm. mais Zarko day mbërum acier. Mm. li muy wut ci forti ci li muy wut ci doolam la koy wut ci sañ-sañam. waaw la koy wut si. te boo xoolee tey yow la nga koy yan bu nekkul lu tar lool mm. lool du ci bàyyi xel. Mm. loolu mooy différence bi. Mm-hmm.

waaye lamb suñu borom. Mhm. yàgg na cee créer ay phénomène lamb créer phénomène boo phénomène boo xam ne bu tudd Ada Fass mhm. dëkk ndakaaru xale bi gëm na boppam dëggal na boppam ci làmb mhm. taxaw nodd ne day bëri mbër yëpp ñu jox Ada Fass Zarko diggante Ada Fass ak Zarko ni mu nekkee ndara la nga ci ah, amateur D'abord, lay d' abord damay félicité bu baax a baax a courage bi am pour tàllal pour jëli Zarko mm-hmm. di félicité aussi Zarko courage bi am pour tàllal loxo Ada Fass parce que wax deug yalla xam nga euh bu ko neexoon mu ne non ma daan bàyyi ma njoon Ada day door ñew duma du ma ko du ma bëreeg ñoom kon dar Zarko bu jëlee Ada rek amna fu ko tek parce que combat à haut risque le ci mom waaw ndax. Hmm. Ada Fass amul dara lu muy perte ci combat bi. du dëgg ndax. Eh, bëri na ak Sa Zarko bëri na ak Siteu bëri na ak Baye Mandione xam nga ak ñi mu ak ñi mu bëri ñëpp kenn du lim. waaye li ma la si mën a Ada comme hmm. ni nga ko waxee rek phénomène la boo xamante ni waa waa ñoo ko ma juumul visibilité bi ñuy wax noonu moo ko jig si man visibilité bi lu ko jig la waaye est-ce que si moom la est-ce que du si ñi muy àndal parce que Ada Fass li ñu koy gis si réseaux sociaux yi moo moo ëpp li ñu koy gis entraitement xëy na nag loolu stratégie la quoi ak ñi mu ñi mu àndal xëy na noonu la ñuy def pour jaay seen image mhm. mbër aussi waaw en tout cas daal réussir nañ ko mhm. trop sax réussir nañ ko trop parce que Ada Fass bërki dee boo jaay la tey ñëpp ko xam du dëgg mais combat bi man si sama jàngat Zarko par par largement favori devant Ada Fass c'est-à-dire Zarko mooy mooy favori parce que Zarko mooy dëkk bëreel ñi Zarko bëreel Ada Fass bëreel bëreewul ak ñoom waaw mais combat bi li leen jik ñoom ñaan ñëpp kenn ku si nekk dem wuti sa morom moo la jik te Zarko bu mu daan Ada Fass foog mu xeex moom xeex ba day nekk ca jàpp ngemb ba pare doog xeex Ada Fass wala day nekk xeex ba ca. kóor non man na kóor ak kóor ak moom te il faut mu da daan Ada na kóor moom jarul sax jàppante bu bari parce que man na ko am mën na ko bañ a nga bëri moom dafa dafa doy waar pour kal mu entraîné ba ëpp mhm. quatre vingt kilos daan ku ne mhm. kon su ma déggee ne mhm. bu jàppee Ada Fass ci ngemb ba pare début de xeex ah, boobu avantage avantage am waaw mais bu dee xeexu corps à corps ba. mën na fa jël coup bi te na ko song mën na jooyal moom daan ko balaa muy comprendre fekk na na suuf. parce que hmm. nag Zarko mbër mu dërkiis la bul fàtte loolu. bu la bu la songee mën na jeexal làmb ji quoi te Ada Fass yi ma gis combat yi ma seetaan yëpp benn la ci song daan yeneen yëpp dañ ko wutali mu daan leen. kon tey jii su ma la déggee. Zarko loolu laa koy digal ci combat bi. loolu laa koy digal si parce que Zarko. ak hmm? ñi doon song Ada Fass ak Zarko bokkul. bu ma li Ada Fass gën a mën a fa fekk daan ko parce que da koy bett. parce nit nag loo fort am na ku gën a nit mënoo mën a ah. il faut nga am loo télé. ci làmb nit mënoo a lépp il nga am loo télé. Zarko na lu mu télé comme Ada am na lu mu mm-hmm. am na lu mu télé comme yeneen mbër yëpp. si man. Mm-hmm. combat bi sama jàngat. combat bi Zarko warul sori Ada Fass du toll li tar fatal ay ni arbitre sifle na mooy dafa dafa war a dox mm-hmm. si ko daan ko amul amul may mag moo war a ut yooyu noonu amul si làmb ji. Mm-hmm. waaw mais Ada Fass daan na Zarko bu mu bett kenn. dafa ko man dafa ko man lu tax man lu mën a nekk la. lu man a nekk c'est pas parce que Zarko mooy favori bi que Zarko mooy daan à cent pour cent. man gëmu gëmuma loolu si làmb. mais nu nu nu seen ñaari forme yi état de forme yi. ni ni ñu ni ñu amee. non man si man Zarko moom ah, Zarko moom leer na ma ne forme am naturelle la c'est naturel. bu Ada Fass nag wóoru mhm. parce que Ada Ada Fass li li ma koy. gis man man man seen naa démb Zarko ci signature bi. seen naa Ada Fass signature bi man gis naa Ada Fass ci jour combat bi nga xam ne nii ci la ñëwoon. arène nationale naa ci ñi ko gën a jege. am na video yi ma for ci mhm. Zarko ci entraînement am mu sol benn mhm. laar bu weex ni mhm. mais laar bi di jóg ma gis yaram bi carrément mais vidéo yi dafa xaw a gàtt mais Zarko lam bi yoroon contre Sa Thiès ba ko Modou Lô di indi doole jooju bu mu bett kenn ci combat bi waaye li ma jaaxal ma dama gis Ada bu mag lool kooku paree ñu jox grand Youssou Gueye ci avantage bu bëri bi nga xam ne moom la Ada Fass waaw man nag xam nga Ada day day man wóoruma ndax parce que affaire yi gaaw na na trop sax te ñun ñëpp sportif lañu xam nga xaw ma ndax xaw ma ndax nature parce que jigaw ma jigaw ma staff bi jigaw ma Ada Fass xaw ma ndax lu naturel la wala lu naturel mais Zarko moom leer na ma ne lu naturel la yor. Mhm. waaw te xam nga Angleterre ak Combeterre mhm. nag du benn nag ñu waxante dëgg. te dafa am loo xam ne dama gis mhm. Ada Fass da ko xewalaat Mhm. te lu jëfee léegi ci mbëri ya, am combat mhm. capital. Mhm. ñëw mangiyee. Medina gépp Ndakaaru gépp génn nga simmee ko taxaw ci seen biir contact. ah kon ah. macha allah waaw maa ngi lay maa ngi déglu maa ngi ah, rafetlu bu baax waxtaan bi. ci diggante Zarko Ada Fass. di la wax ne Fadam xam nga gars yi moom. bu ñu waxee ba pare rek da ngay daal di bëgg a delloo toog di seetaan quoi parce que day gën a neex daal. mhm mhm woy fom ale ak fong fanyen kon nyem dun ek bello gara yisou bi tibir ge ou lam mm-hmm. yon adefans an zarko dugounen tibir ge ou lam fow fos an zarko nan lawre reyazire adefans nan lawre reyazire woy mwen lopon mwen lopon mwen lopon mwen lopon mwen lopon mwen lopon waaw dama am lu ma gis ci ñaari mbër yi kenn yor ko keroog jour boobu Eumeu Sène lu mu yoroon kenn koo xam ne benn comportement boobu dina ko indi keroog. waaw fugu ba. keroog bul fàtte ni ñetti bitéeli Boy Kayre dese ci ci wetu cumukaay Boy benn bi Eumeu Sène da koo bi ci des da koo sotteeku. déglu li ma wax de ñetti bitéel yi yi Boy benn bi booy. Eumeu Sène da football bi ci des mu naan mu mu li da ko da ko naan li mu sotte ko. moo taxit mu daal di jënd bu metti keroog kilifa gu mag goo xamante ne ci waa Fass la bokk ñoo toogandoo woon. dafa ni su doon Eumeu Sène sama tànk bi dama koy denc tey. booba jamono jooju Eumeu Sène daana daan ci làmb ji dem mbapat ma toj mbap daan ñëpp ci pied pied tànk bi muy joxe. Ane bobu la ko année boobu la ko entraîneur u Lac de Guiers bi lawa suma jumul mais lawa lawa la mo la bi waxoon keroog motax tok ak magum lamb, ci ci lamb des fois day am solo la magum Fass bi waxoon su ma doon ëmb sama tank dama koy denc ndax lim ma gis ci kay neexum ah léegi loolu waaw kay bàyyi nag mooy ñëw su suma dal ar face dina nëbb mbot mi mbot mi duma ko def mukk te jërul ma baye Matar ge mu yeggale deng nga man nak foofu bopp rek ma génn waaw waaw yeggali yeggali nga ci yombul solo mm-hmm. li ma la bëgg laaj li ma la bëgg a laaj daf may ñor trop ci làmb lan moo tax nga nëbbulu Ada Fass tànkam ndax Zarko dafa am songo mu sax moo xam ne da koo am wala bu jàppee ci ngemb day jargandalu jubal ci sa tànk pour mën laa vider. Ada Fass laa ne puy mi day jàngale bëre yaakaar naa fi mu nekk ci Suisse. Matar Gueye mi yàgg na ci làmb xam nga li ma lay wax yow mboot mboot mouvement de sacrifice la ko tubab tudde bo demé ci judo mouvement de sacrifice la ko tudde japonais yi hmm. dàq fa mboot ci aduna bi bala ñooy mbot dañuy hmm. jaaxle dëgg xam nga kon du mouvement bu wóor hmm. parce que amna nit ñu gaaw ño xam vitesse bu ñuy àndal mboot leen ma parfait day jafé te buñ la lamb buñ la bo leen jiitoo tuuti sa bop rek moom judo ñoyam da ngay perdre combat Mm. te rapidité mm. bi Zarko yore ci làmb ma gis ñu di ko contre mbay guy gi est-ce que bu ci yokkee dara te Zarko dafa gaaw de te nana la combat bi trois temps yi bu ko yeggalee maanaam mm. de distance bi bi muy ñëwee ak xam nga dañuy jaawale rapidité ak ak du benn gis nga su ma jëlee xeer sànni ko mu dal yow ni la ko nii rek sama digganteeg yow xeer bi su la dalee sa bopp du toj mais su ma ko ànd xam nga su ma ko sànnee xam nga su ñëwee taf bi muy def vitesse ba muy àndal mu exécution ba lay doon te Zarko yaakaar naa xel mi actuellement ak doole ji ñoo tolloo kon kon loolu képp kuy liggéey ak Ada Fass ci tànkam bi ni mu koy tegee war nga war nga liggéey ci moom loo xamante ni du question ni dafay day bëre pour mbot parce que ñi mu doon bëreel Coly fay ak ñeneen ñi du Zarko waaw ah, ñu ak te accident lamb fu nekk lay am xam nga ko daanoon na Sa Thiès ba ñibbi te seen waa kër yëguñu ko moom sax moom sax vitesse bi mu egg ci kaw Sa sax yëgul ni mu egg na fi mm-hmm. foogoon na ne Sa gis na ko ah. comprendre ngeen li fi ma waxee du nag dañuy dañuy soxlu aada faas wala me mais dañuy wax rek ci làmb ji pour mm-hmm. ñaari entraîneurs yi kenn ku ci nekk rek am li may wax ah. mais li ma lay wax ni Jëlaani Puy moom ko gën a xam fuuf Matar Gueye moom ko gën a xam gis nga Balla Bèye bi arbine bëxëri ñëpp bi arbi wàccee loxoom digganteem ak Boy Kayre Balla Bèye egg na ci kaw Boy Kayre laata Boy Kayre entraîné na mbot mi ñaari wër yalla ñaari wër 2 ah mois la lay bo Kairé entraîné na ko wa Fass té bi pale bi essayé Boy Kairé njëkk mm-hmm. suuf mm-hmm. mais il suffit que Tafa Gueye il suffit que wa Fass toka tak Tafa Gueye bi Tafa Gueye répété bale bi dafa jóg daanu dafa dafa xol Tafa Gueye dur ko aré yaakar ne mom dafa xol Tafa Gueye rek xam daan nako dafa jóg rek ko aré dama la nii rapidité rapidité bima gëss ci sarko mi kenn dàq ko mhm. a mboot Jeylaani mi waaw a gis naa ko mu mboot tax ma wax ma waxee te mboot mboot moom mouvement sacrifice la <laughs> kon kii entraîné Zarko kii entraîné Ada Fass mhm. kii entraîné Ada Fass na sóor mhm. lii ma lay wax rapidité Zarko mooy lan ah. waaw boo ma ma mayee yi génn toog parce que ñaari yi di leen seetaan ndax may gëna a neex quoi <laughs> mais ala Hadj félicitations la nga mo waxoon yëpp am na. nañ ko agali ba mu jeex rek. nañ ko agali ba mu jeex rek ndax bu leen fàttali tay ji bomba no da dugalatal keneen da gaa am na ñeneen ñu mën làmb dugalaatal keneen Jeylaani ma ngi lay féliciter mais mais jere jere ala Hadj ma ngi lay félicité jërëjëf sama waaj. no non jappale jappale yow yow yow foo nekk ñu ma Matar Gueye nak dafa weddi ndax ma Matar Gueye man keur Baakar kër Bakar ak kër Ndiobo. waaw ak Minam ak Taïba Ndiaye ak Jinge. waaye dafa am jaaxal Fadam Fadam Fadam Jinge. Jinge dégg naa fa Ada Fass. Fadam Fadam Jinge dégg naa fa Ada Fass. ah ruq lay wax nii fa Ada Fass. bon dafa dem de. xala du fa dem mani deggo mana? li mana wax mani fa la jige won modlo trade très man mi di wax ak yow petit kana fa ba man mi di wax ak yow mais mais mais Fadam waaw ah. dafa am ben histoire bo xamni lol loolu live lay doon may la ko papa deggo waaw booy ñaar dafa am ben ko ba xam ne ñaari avance la jëlaloo ñaari avance war ko bëre ci ben takku sandi lol histoire la ma kon xewal sama gaay ma maa leen di ziar baax baax merci beaucoup gars jël. bu bul dem Youssou yow yow yow yow yow yow yaay soxla nañ yow yow bu dem di dem hmm. di man man mii war di, dem. mais Matar Gueye. waaw mais Matar Gueye Matar Gueye fi fi lamb gi toll. ndax Ada Fass ak Zarko war ga ngeen doon wax. Ada Fass day ci boppam Ada Fass. ndax gis naa ko mu signature kulifa yi deux loo xam ne nii. en tout cas daal côté boo bëggee dëgg-dëgg mooy. lamb bu lamb bu lamb maanaam bu la séntu mhm. da ngay da ngay fital da ngay fit. lamb dafa baaxoo noonu. te lamb mhm. ji dafa toll foo xam si. Mhm. mbër bu ci amul bopp loo bëgg a wax. amoo staff. say combat yu bari doo ci génn. làmb nag day toll foo xam ne si mën ngaa ñëw tey sa expérience génn ci mais day toll foo xam xamul lu ciy génn pour laaj fayda ak sañ-sañ mhm. te combat Ada Fass ak Zarko mhm. xamul lu ci génn Ada Fass ak bu mu am la mhm. bu dee qualifié la dafa am sa dafa am xadar boo xam ne si mi ngi ci moom te boo ko tooñee bu la fekk see loo bëgg def da nga koy def mais nag Zarko bu lay songu bu mhm. lay xeex si. Mhm. bu jàppee sa ngemb ba war a demee flexion ba ni mu lay bëttee. neexu la mboot. mboot mënu faa feeñ. liggéey lu teñ ak sañ-sañ mhm. ak xadar bu mitti moo la cay génne. ma jox la exemple ma jox la exemple combat Siteu ak Zarko. est-ce que Siteu bu nekk fa du yox yox ndax dina dina dina dina daan Zarko. mi ngi noonu nag. léegi nak lolou mo lay war ni la arafas arafas na pare manam combat bi lu laaj ci lepp nako ko indi teg na fekk mu pare lepp suko ko wul comme lima don wax rek duma ko bëgg ndax adversaire bu ma am la dafa ma adversaire bo xamni ne si wul dara limu indi rek la gëm Zarko li li li li wax xeex day ubbi ouverture ci combat am ak Ada Fass mais Ada Fass it bëree ci ci ci combat bi li ouverture am mooy dana xeex ak Zarko da koy perturber léegi nag bu bu Zarko yeyoo bëree si mhm. sens kon Zarko war na dox pas ci song ba dafa war a xeex ak Ada parce que nag Ada Fass wanegul benn xeex ci làmb ji wanegul benn xeex ci làmb ji kenn mënu ko ci gisee ci wàllu xeex. Hmm? xoolal combat bi yëpp nag. amul combat boo mën a ñëw ma nga gën a Ada tey daa andi bëre tey bàyyi na fa bëre andi na fa xeex te ci combat am ak Zarko dafa laaj xeexu Ada Fass il faut mu perturber Zarko Zarko doo ko bay ci sagom rek mu dila manipuler dila wan force am dila la wan dooleem dila la wan sañ-sañam no doo ko bàyyi ci loolu Zarko mbër bu ñu tegal fitna la ci comp ci lamb kuy beure mo te tegaloo loko fitna li nga bëgg ci moom am am na solo hmm. mais Dieylané puy Ada fas lan la wara maytu ci Zarko ak Zarko lan la war a mettre. waaw balaa may ñëw si sa question El Hadj Fadam baal ma. ma nuyu bu baax a baax. Euh, mm-hmm. sama gars yi seetaan live bi yëpp ndax boobu ba léegi ñuy commentaire commentaire yu am solo. ku si mel ni le grand champion doomu daango mu ngi lay seetaan. maa ngi koy nuyu di ko ñaanal ndam. ci combat bi mu dëgmal mo fils de Balla. incha allah daal di si jàpp bu baax a baax a baax. waaw. waaw moom moom suñu suñu rakka suñu suñu sunu xarit la di nuyu mam Babacar mi ak Fëgala 2 Fëgala 2. le grand champion mu ngi lay seetaan aussi. waaw di nuyu sama rakk Mame Babou di ñu ñuy seetaan yépp mais Alaaji Fadam loolu boo bëggee moo boo bëggee dégg-dégg mooy. Ada Fass warul moytu lu mu moytu si dàq rek mooy ñàkk na la waaw waaw. laa bëgg a wax de. xam nga xam nga xam nga war naa la defe naa defe naa y' a quelque. ma la ma. jë Jeylaani Pouy li nga wax de te man damaa bëgg wax. dégguma li nga deux semaines wax la ko ba nga coupé ko sax dugal ko YouTube maa ko doon seetaanaat jour combat rek maa ngi koy la. la ah dégguloo ma. dégguñ la déglu déglu. ma la ji nga ne. dama la ko wax il deux semaines avant combat Balla Gaye ak Boy Niang ma ne la Balla Gaye lu mu. wax fekk lu ko te Boy lu mu moytu si lu mu moytoo lu tuuti si. Balla na la ko. loolu laa lay waxaat fii si Ada Fass ak Zarko bu mooy toolu tuuti si Zarko mooy balaa muy comprendre Zarko àgg na Grand Yoff waru li mu li mu mooy li muy woote nii mooy agressé ah, Zarko Zarko amul dara si loolu la war a dëgg li si combat ba ah. loolu loolu la war a dëggal. Hmm? yii loolu rek la war a dëggal. te man bu ma doon aar. jéem du ma. waaw tey daal nga yaakaar ne bu ko agressé du daje. agressé bi muy agressé Zarko lan lay non maanaam man loolu bëgg maanaam da da. Oh. may ma rek ma ñëw parce que xam nga làmb naxante la. man bu ma doon ma doon aas xam nga yéen gars yi nag yéen a ngi bëri làmb. Ah, macha allah. day daje de. seetaan wala am ñuy ànd Zarko ñuy seetaan laay. dama dama dama dama bëggoon a dama bëggoon a dugal Jeylaani ba ben bat rek la doon diglu ci Jeylaani Pouy mu ne bu Ada face diriger Zarko. Mm-hmm. ba imposer ko. Mm-hmm. te Zarko dafa nek benn mbeur mo xam ni dafa am ben jikko bu mbokk ak Balla Gaye 2. dañuy fayu. tëggkat boo leen tooñu sax ñu tooñu la dañuy fayu. kon mm-hmm. tey jii ah, ah, ah, Jeylaani. ak waaw mané mané bu fekkee am ñuy ñu jégué ñaari mbeur yépp bu ma doon Ada face bi yoon du ma bàyyi comme comme li grand Youssou wax na ko léegi duma bàyyi ak Zarko mu ñëw bëri si sama kaw man maay bëri ci kawam. ma ma doon aada face. maay agressé Zarko mais agressé bi yëpp day ànd ma sàmm samay tànk parce que Zarko dafa gaaw. maay agressé Zarko. Mm-hmm. dem bëri si kawam. maanaam maay dem jàppi tànk Zarko bëri moom ma xool lan la ma ne si tànk yi. ndax Zarko gisuma ko ko sonn si tànk yi. te nag bul fàtte Zarko mu agressé Baye Mandione. ah très bien. ak Baye Baye Baye Baye Mandione si dayo bi Baye Mandione si pit bi bay Baye Mandione daa xam mbot Ada Fass foofu. maa la wax lool Baye Mandione daa xam mbot Ada Fass. fàttali ko mbootam Pape Sène. Baye ba giñ na nag te Baye ma Ada Fass bi moo ko gën a nekk xale c'est vrai mais Baye Mandione suruxal na sarko war a jeexal làmb ji Zarko physique moo ko fa téye keroog benn loxo la samp. trois appuis benn loxo moo ko tere moo tere làmb ji jeex bàyyi ma joon mënu fexe ba indi benn loxo bi nga xam ne Zarko physiquement il est prêt te nii day gën mm-hmm. xam nga contre bàyyi ma la pare ba ñëpp di ko wax bii combat bii lay xale bi sap sàpp lay bëril waaw man combat bi li may bëgg bu ma doon indi dama koy wax nek mu bëri ji ci kaw Zarko du ma bàyyi Zarko mu bëri sama kaw parce que Zarko mu bëri si rek risque la ci moom Zarko li li ma koy wax moom it moy ma ma xex ak Ada dama koy djuma ba pare do do rëbb rek mom bu ma don ma Zarko bu ma doon Zarko dama koy lo ba nopi mu xex ak Ada xex bu sap sap dem ci tànk yi daan ko mais bu mu japp bu mu jappante Ada arafas si kaw eh. parce que bu ak Ada si kaw man nak man nak baña arranger arrangé bu ma doon moom si suuf diggante diggante ndiggali jëm si suuf fa laay bëreeg Ada Fass mhm. bu ma doon Zarko dama koy xeexloo combat bi dama koy xeexloo xeex bu saf-sap doo doo rëbb rek Ada Fass parce que bul fàtte ne nag ondu le bi muy bi muy adressé ah. Ada Fass dafa ah. xeex ak moom ah, xeex bi moo tax mu daan Ada Fass Ada Fass dafa jël ay coup comme xam nañ ne Ada Fass supporté wul ay coup bu ma doon bu ma doon dama koy loolu am na su yaa Jeylaani côté bi mu nekkee xam naa sax dina waaw réseau bi ñëwaat na. ah ñëwaat na waaw parce que réseau mhm. ma ne man man man man laa wax bu fekkoon ne dama andi ñaari mbër yi andi wax naa la Ada Fass bu ma ko andi li ma koy digal. Zarko bi ma bu ma ko andi li ma koy digal mooy du ma du ma ko bàyyi du ma bàyyi mukk Ada Fass. voilà bëri gi Ada war a bëri si sama kaw loolu laay bañ. oh Jeylaani Jeylaani. bu ma. bu ma man man maa koy jëli la bi. day tourné day tourné day jox Grand ñu sa normal kan? balaa Matar Gueye ñëw Grand Youssou Gueye. waaw combat bi lan la mën apporter. damaa am lu ma ci bëgg rek. combat bi 15. Euh, Zarko dafa am benn manin boo xamante ni yàlla daf ko ko may mook Tyson 2 ñoo ko am ci làmb ci na nañ ko bokk maanaam dañoo yor jikkoy jësit ah, bu demee noonu ak Ama bopp tegoo ci sa jumbux rek luñ fa fekk luñ mën nañ ko jël muy muy Tyson 2 ak ak Zarko loolu point for la te point for nit mën na cee dugal aduna ben technique kep nit mën na ci daan aduna bëpp bu mokkee lima ragal nak fadam moy wax ji bari na mm-hmm. gay yi na fetal na na na Ada Fass fetal jaar mm-hmm. mais bu fetalee jaar na soural dajé ba ndax fadam courpé ñi ñaar lay don dé un deux dóoral ma dóor du fa am kenn day wor <laughs> fadam bu ñu xex bay dem ardo kenn day wor ku dóor un deux boo gisee buntu continuer dóor ba wor dina am. <laughs> Fadam dañ lay wor egg la foo xamante ne làmb. walaay dañ la war ko yëg. combat bii du combat ay bukur mm. peñ. Mm. combat bi combat dëggal sa bopp. Mm-hmm. ba ci biir nga wor. Mm. moo fa am leneen lu la ci. waay wax rek buy fetal jaar di da di dajeeg Zarko fetal jaar bi dafa am. am lu muy lu muy tëggee de sam ay tankam ba mu wóor taxaw ci te baña a bëri mboot bi bu koy bëri na ñor mhm. ndax rapidité ba ca Zarko moo tax mhm. Zarko timit sa bu tibé à la face na na fatlikou bi mu tibé Zarko bi mu tibé cité ci tibbu bu ñëk ba yobu ko sa ko ya am na nu mu koy jëlee noo xamante ne yomb ci am na noo xam ne. waaw ne cëpp tànku Ada day yomb ci Ada Fass. mais am na fo am na noo xam ne bu ñu jëlee tànk bi. ak rapidité bi mu am mën naa daal Ada Fass ba yegg fa Ada Fass du du du du yëg du yëg li bëri woon nañ li xam nga ko. moo tax ma ne la Fadam ku ni làmb ji làmb mën naa am ñaari sonk man gëmuma ko. rungkum lii lima eh, eh, la rungkum dal nga ci gis ndax woor na la ni woor xolal li li ñuy wax ci Ada face mo am ci gis nga sa way buy arrière Zarko buy arrière Ada face bu arrière lay Ada face tarafatal ay ni hmm day am lu bu ñak benen bi ci def du may digal Zarko bi may digal Ada Fass mooy mu moytu dernier hmm. minute dernier minute débat dépp digganteem ak hmm. Zarko

bu may saraan làmb du ma xool ñaari mbër yi man damay xool bay xool tëggkat bi lu mu def du ko fat yow maa ngi yow man tëggkat bi sax bu indee def lu mu wër la def rek xam naa ne tey jii waa ji daana def loo xamante def ko mais dama ne Zarko keroog def na loo xam ni dafa wut bàyyi ma ñoon ko mais ci rek bàyyi ma ñoon la ko jaare aha eggale nga lépp jóge ci ci mi gaayam xaajale bi juge ci am mikaayam xaajale géew bi. wa ñoo fekk bay ma ñoom mu ne kii dynamique gala jam mu joxoñ ko. mu très bien yaa ngi noonu foofu laay lool nak lu loolu nag lu lu luñ ci wara travailler ci mom bu fekke ni ñima gis kànga ñi gis paas ña nga ca mom te muy dëgg ci ñom parce que lamb ji nak des fois da ngay and ak nit te and ak ñu ak ñu dëgg ci mom da bari na ci làmb daa bari warkat de. Mhm. dafa bari ay kat waaw léegi daal ñoom ñaar ñëpp hmm. kenn ku nekk am nga avantage avantage yi mooy Fadam jërul guddal jërul gàttal ku njëkk a war yaa moom xeex moom dina am kurpeñ dina ah. jóg ndax bëriwuñ simple moom sax laay bëgg a dugg Zarko du bëreeg Ada Fass mi ko te xeexul ak moom fii laa koy wax mi ngi noonu waaye nag mais tamit yéen a ngi naan Zarko du bëri ak Arafat ak waaw moom xam nga ñoom ñaar ay ñoom ñaar ay ndaama a ñoom ñaar ay ndaama lañ dafa am dafa am ndaamal màcc waaw waaw mooy ndaamal màcc bi mais nag Arafat waaye nag Zarko dafa yor aliru bàll bi ba pare am lu mu dese lu bokkul ak bàll bi ndax Zarko du joxe wet ga Zarko buy songu day day xaaj boppam dakoy xaaj mhm. comprendre li ma la maanaam Zarko man nga koo mboot mais day des ci sa ginnaaw da lay wër ndombam. waaw daa mën a takk daa maanaam daa mën a takk ci weer. daa mën a takk te dafa te dafa athlète dafa athlète eh, dafa athlète maanaam ca kaw ëppul ëppul doole lool ci suuf ci suuf dafa maîtriser ci kaw te ci kaw néewul doole. xam nga xam nga li nga wax ni dëgg la gis nga Zarko ma dama ko maîtriser. Mhm. parce que dama am ñaari adversaire yu mu bëreel yoo xam si ku ci nekk li ma la tegal. bi nga demee da nga cee génn combat am ak Modou Anta combat Siteu Zarko dafa nekk adversaire boo xam ne si tey gis nga mbër mu parewul à cent pour mhm. cent bu jël avance su Zarko wax ay coow ay wax yi bëriwul ak Zarko mhm. yaa ngi mais Matar ah. Gueye Matar Gueye Matar Gueye Ada Fass Ada Fass fi ma ko xale du fa dem de du question parewul de ay ay gin ay ah, li ci ginnaawam de may ma tuuti rek ma wax la may ma tuuti ma wax la làmb ginnaaw da cee baax làmb ngemb da cee baax mais est ce xam nga ñaari mbër bu ñu tolloo ngemb ci biir làmb xam nga ne sañ-sañ mooy tax kenn gañ a combat xamoo loolu. wér na. kon su ma la déggee su ma la déggee Matar Gueye da ngay gént Ada Fass bu tolloog Zarko ci ngemb. tolloog moom ci doole mi ngi noonu tolloog moom ci lépp làmb ji nga xam ne dañ dañ koy dañ koy libéré rek. léegi nag léegi nag làmb ji bu tolloog làmb bu ñu dajee. am ndam ci kaw sarko sañ-sañ lay indi sañ-sañ. sañ lay indi. fanam bañ naa de. Ah, waa baax na. xam nga Zarko ban nga ko ëpp ngemb te doo xam. loo bañ noonu. Zarko mbër dina ëpp ngemb ci làmb ci te du ko xam. dégguma. allure ba muy dégagé la. ak la nekk te moom. wa waa looloo tax nag. looloo nag xaar ma Fadam. Fadam mais nag ñaari mbër yi ñaari mbër yi ndax jàpp leen ci. Fadam jàpp leen ci ngeen. foofu laa foofu laa bëgg na ñëw ndax yóbbu na muy tax sarko boo xoolee ay defetam yëpp heure bu heure bu daanoo day jóg jàpp loxoom. parce que sañ-sañ gi mi demee moo tax. Mhm. ndax lan. Zarko tout le temps ci combat am sañ-sañ lay sañ-sañ lay demee. kenn mënu ci dara parce que dafa am mbër yoo xam ne si seen habitude ak li ñu gëm ak li ñuy bëree duñ ko changé it laa yow mi diini moo tax man la. waaw moom mooy lamb runkum. waaw man la non runkum moom il faut mu am il faut runkum loola tax man la aada faas. loola tax man la aada il faut mu. andi sañ ci kaw Zarko. waaw loolu force la combat bee ko laaj. mais nag aada ndax aada faas na aada faas nangu naa mu dogali. ci ngemb na muy daw. digalu ma ko de digalu ma ko lool de. ak ak ak ngembam lu këfalum gu mag googu noonu. barke alxuraan digalu ma ko. ndax adversaire bu mu am la. Hmm. Zarko doo ko may mu jàpp de doo ko may loxoom duy ba fees. lu leer laa lay wax. digalu ma ko lool de hmm. loolu moom digalu ma ko moom. waa xam nga soose mi ci ginnaawam. Fass daal Ada Fass lenn Zarko yow dinaa la ko wax. jiili mbay mi ci ginnaawam Ada Fass. ak doon champion ci làmb. ak hmm. daanandam ci làmb. ak fi mu war a am fi mu war a àgg ci làmbam ci combat bi la koy prouver. waaw eh, sama doomu ndijaay ji wax kuy diriger ñoom ñaar dama la ni làmb ji ku ko diriger man damay ragal nga ñàkk ko waaw dafa am fanam ko laaj ni kuy diriger ci bis ba. ndax mhm. gis nga fas fas fas làmb yi ini, fas làmb yi ini, fas làmb yi ini, waaw kay gis nga façon fas làmb yi nii fas làmb yi nii Matar Gueye mhm. day am day am du bari ci du bari ci saison mais ki tëgg làmb ji mooy ndaanaan. ki leen boole mooy ndaanaan waaye làmb ji man mhm. mën naa mën naa mën naa rek loxo dem gémmiñ te du ànd ko tibb waaw ji ñaari combat la ci muy euh, muy muy muy muy. non non déedéet muy moom. non Sa Thiès Sa Thiès moom àdduna bi tukki ana bii moom. booy ñaag Balla Gaye jël nañ record bi